bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi allazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul sëriñ bi ci ndigal li ma joxoon wax ma ne bu waxee kàddu yi naa ko ko sànni kon hunna umul kon li sëriñ bi wax tënk na lépp dama koy jotle tuuti rek ay kàddu nuyu ak i ak ngërëm ak kàddu yu tuuti soññee jëme ci bokki taalibe yi ngi tàmbalee nuyoo bi nag ci président de la république njiite réew yi Macky Sall sëriñ bi nga koy nuyu bu baax ak mboolem délégation bi mu àndal bépp di ko sant ni mu ko waxee ci làmmiñam danaa ci dellusiwaat di nuyu mboolem ambassadeur yi nga xam ne teew nañ fi léegi te lépp mu mat ñeent fukk juróom ci ay réew yoo xam ne teew nañ fi ngir ànd sëriñ bi bis bi di sant bu baax mboolem këri diine yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo bokk liggéey bi te lépp lu muy def mu ànd ko ñoom te ñu cëpp seen ndaw teew na fi ñëpp sëriñ baa ngi leen di sant di leen gërëm di jéggalu nag ci yéex a yëgle gi ndax sëriñ bi dafa waxoon ne diggante si ubbite ubbite gi nag wootewu ko ngir nit ñi ñëw daa bëgg rek ñu yëg ko ndax xataay bu moo tax ku ko yëgut tam nga xam ne noonu la demee waaye ñëpp sëriñ bi boole na leen ci ñu ngi sant bu baax nag ñi nga xam ne ñoo moom ñoo bokk liggéey bii di njabootu Sëriñ Tuubaa gépp kenn desut fu ci amul ngant rek teewal nga sa ko ku am ngant it yabal nga ko teewal kon nag sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ngir xam ne liggéey ba mu ko yëkkatee ba yéen ak moom yéen a ko ànd kenn ku ne def nga ca la nga man def nga ca la nga mën ba liggéey bi taxaw nii di sant it taalibe Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ña ci jiitu ndax taalibe kenn génnu ci. di sant ñi nga xam ne seen maam yi ñoo àndoon ak Serigne Touba laxasaayu li topp ci ginnaaw sëriñ bi ba yoon bi agsi fii mu agsi tey ñooñu itam kenn ku ci ne pëstéef ak yitte ak doogu ga sa maam ju tedd ji amoon amaan nga ko ci liggéey bi wane ko ci lépp loo xam ne Serigne bi yëkkati na ko nga ànd ko. ñooñu itam kenn ku ci ne pëstéef ak yitte ak doogu ga sa maam ju tedd ji amoon. amaan nga ko ci liggéey bi wane ko ci lépp loo xam ne sëriñ bi yëkkati na ko nga ànd ko moom kon nag seriñ bi nee na ñoo ñëpp mi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan ci barke sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo leen taxoon di jëf kenn ku ci ne loo ci jëfoon rek yàlla ko sëriñ Tuubaa fay ginnaaw jàllee nag sëriñ bi wax na ginnaaw boom jottalee cant yooyu ak ngërëm bi ndax wax ju du gudd ndax Cheikh Ahmadou Bari Mbacké Cheikh Mamadou Fadel mi nga xam ne moo doon saytu lii ci wàlluk daara ji ak njàngale mi doon ko taxawu ànd ko doomu sëriñ maam Thierno moom sëriñ Moussa siru ak mboolem ñi ñu ko àndoon ñëpp ba ci Abdou Lahad Kam mi nga xam moo yor liggéey bi ak mboolem ñi ci ne woon te doon barteelu ay bâtiment te ñu lee ko lépp te buñ ci tuddee waa Touba ca kanam tudd ci wax yu tarxee waaye ka ci jiitu nag mooy sëriñ Amdi Xadim mi nga xam ne moo fi jëkk liggéey ak sëriñ Cheikh Moussa Abdou Akim bàyyiwuñ kenn sëriñ bi sant na ñëpp gërëm na waaye xam na lépp lu ngeen di jëf rek sëriñ Touba ngeen koy seeral sëriñ Touba mi ngeen koy seeral nag lu ko waay lebal rek dana ko fay ndax moo waxoon ne Cheikh Abdoulaye Abdou Akim moo waxoon ne sëriñ Touba ñeewut bor daa am pay kon nag sëriñ Touba mi ngeen doon jëflanteel yàlla na leen fay lu koy sa njort ginnaaw bu jàllee nag. nee na mi ngi soññ nag bokki taalibe yi ci ñu xam ne liggéey bi rëy na lool ñëpp ci sonn ndax lii dafa bokkoon ci dénkaane Serigne Touba yi ñu santaani woon waxoon naa ko ci bi ñuy woote bis waxaate dëkk bii di Touba dëkkub daara la waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikrati wat tafahum kon loola bokk na ci naal yi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha indi na ko tey muy liggéey bu rëy nag boo xam ne ku fi mas a nekkee sëñ Tuubaa def nga ko yitte def ci jom def ci taxawaay def ca lañ ca war def ba mu agsi fii tey ci ay loxoom kon ñu koy ñaanal nag ci barke sëñ Tuubaa yàlla suñu borom dëgëral ko kattanal ko ba somb yi nga xam ne am na ko lépp sotti ci loxoom ba mu sombaat yeneen somb ginnaaw boo loolu jàllee nag sëriñ bi wax na ne na ñëpp laxasaay waat te góorgóorluwaat te xam ne liggéey bi ci kanam moo ëpp fuuf li ci seen ginnaaw ndax li koy tabax ba mu agsi fii li ko yor di ko saytu ba mu àgg ca fa mu ko bëgg ba bisu penc loola bu liggéey bu tuuti kon lu ci waay jëfoon rek na gën a góor waat te xam ne liggéey bi day door a tàmbali moo tax ñu ngi sant bu baax waa Touba ci kanam ci yitte xalaat jure ji nga xam ne def nañ ko léegi ba joxe téeméer million ngir gàttaloo ko simbi ci loolu nga xam def na ko di jeexale cant gi rek ci président ndax sëriñ bi wax na ma ne naa la jottali ak cant ci moom cant ci moom ak ngërëm ngir xam ne liggéey bii ni mu la ko waxee ci laam ñoom yéen a ko ànd ba ma ko tàmbalee ba nëgg ni ndax ba nga yëg déggee mu yëkkati kàddoom wax ne day bëgg a tabaxal sëriñ Tuubaa daara ju mag yàlla def mu yénn ma ci yow nga wax ma ne ma dama bëgg nga waxal ma sëriñ bi ne ko université bi xam naa ne rëy na lool waaye lu mu toll lu mu bari bari bu doon ñeent fukki milliards it damaa bëggoon moo bàyyee ma ko nguur gi defar ko buñ ko mënta def ci mel ni at ñu def ko ci ñaari at ba ma ko waxee ma ñëw ci sëriñ bi wax ko ko sëriñ bi jot la ca cant ak ngërëm xamal la ne day liggéey boo xam ne liggéeyu sëriñ Tuubaa la sëriñ Tuubaa yëpp war ca barkeeloon kon nga may ma rek lépp lu ci ay tabax nga bay mu ànd ko taalibe Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne jaayante nañ ci ko def bu ko defee la ci res nag loo ca mën a def nga def ko fa sansa nga sasoo ne kon lépp lu jëm ci tali yi ak assainissement yi ak éclairage public bi fas fas nga ko yéene def loola itam tàmbali nañ ko ñu ci biir liggéey waaye yemoo ca laata sëriñ bi di tàmbali liggéey bi ba mu ko wootee rek nga yëkkati un milliard jox ko ko addee ne ko sama liggéey yow la bëgguma kenn di ci am seere ndax Sëriñ Tuubaa laa koy defal yemoo ci it centre formation bi nga xam ne defaat nga ci biir ak yeneen yéen yi nga xam ne lente yëpp ba ma la joxee kayit wa fa sens nga joxe digal ba ñëpp ñooñu jël nañ leen kon loolu lépp itam mi ngi la ci sant di la ci gërëm di la ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa ànd bi nga xam ne wóor na ko ne nee na Sëriñ la boole moom ci lépp loo xam ne nekk na ci nga ànd ci ak moom te xam na sa yéene ci moom moom itam kon lim lay mën a fay mooy ñaanala Serigne Touba mi nga xam ne mooy borom liggéey bi lépp loo xam ne sa yéene ak sa bëgg-bëgg yàlla dimbali la ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala